Thank you ñu di ñu solo yu jot yi ñun daal tàmm nañ bu weeru koor ñuy jot yi te tamit fàtte suñu diine macha allah dañoo a ay doomi jullit lañ ba weeru koor jot rek ñuy sol yu jot yi di suñu bopp yi daa war a dëkk chaque jour. de moom nekkul weeru koor kes nga war a sol lu yiw di la man de moom avant weeru koor sax doon naa sol ay tubéy waaye weeru koor bii da see raw ndaxte benn weer nee loo ci def ñu fay la ko ñaar fukki yiw xam nga ne kon def tu baax rek moo am solo. ñu ñu tëj rab yeeg jënne yi. fi mu ne nii ku bëgg a joom yaa joomal sa bopp. waaw ndaxte yàlla suñu boroom lépp luy xeetu baax baax si weer bii la ko wàccee. sell gi mu sell moo tax dangay dégg réew mi yëpp ne tekk. waaw man moo tax moom wax fa dëgg yàlla ma def nii rek seel man man weeru koor ndax dañ lay xamal suñu borom. télé boo jàpp instant bi ñu ñuy waar di ñu xamal si ñun kii dee ñu delloo ci yàlla te tamit ñoom dañoo war a bàyyi habitude boobu weeru koor rek la ñuy commencé di waare waaye kenn du oustaz boobu ci suñu wet kooku wàllu kaamil nitu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg kooku daal boo koy xool danga koy classé ci nitu yàlla yi parce que lu ñuy waar alxuraan bi muy jàng set na macha allah dëgg yàlla fu ma ko dégloo rek sama xel mi ci suñu borom rek lay nga baal ma de waaye ñiy waaye suñu borom dafa am lu mu wax nekkul ne weeru koor kese la waaraatekat yi war a génnee seeni aaya di waaraate chaque jour dañoo war di waaraate nit ñi di njëriñu ndax nit ñi léegi dañoo réer defkat yu bon yaa ngi fi defkatu ñaawteef yaa ngi fi moo taxit nag buñ ci sukkandikoo rek duñu réer ci weeru koor bi daa war di continuer nag waaye nga ñëwaat ci oustaz Diop nga baal ma de waaye kooku jubut de jubudde ustaas bi mosul bu neex bi ngay dégg ci moom day teg nii kasetam di ci toppandoo ko defee nit ñi naan ko yaa may conférence al ah. jubut mbiram luusa nga ca <laughs> ku ba nangóob de ku mës a waar de boo demee sa kër waaroo nga te lu nga xamante ne boo koy xool dangay xam ne nitu yàlla la nga ne jubut moom maa ba àdduna ma ne la yow sax yaa ko gën a jege suñu borom moom sori na suñu borom de ah, aadama lëndëm la yàlla de moom njaboot jël seen sikki mi guddoo ko ba mu gudd génnee seeni faas boo waxee ñu ne leen ustaas def seen koppati jël seen kurus bu rëy fekk na sori nañ suñu borom ah, loolu de bu amee waaraate de xamu ci dara dara dara dara yow ma waar na nii moo gën a yomb moom ñu mu waar yi ustaas Jóob de deful lu dul bon bon la def ba lekk ma naat. nga ne li muy wax yépp da kaa fortaat. yàlla mën naa déggoo ma de. Ah. Fuuta la nekkoon. ngeen dëkku Cheikh Omar yu taal nga xamante ne ku fa génn arabisant dëgg. wàllu kaamil borom bànjagara. waaye moom ku ko ne jàq xaaju kanam gi di iblis la lay jox. ah jubut de. neen dafa tëji daara. Mm. waaye daara ba. Mm. gone gu ma gis comme suñu genre gi nii nga muuru muuraay ba rafet loolu mm. bu subaa mën na la yaay tari te tari bi tari bi boo génnee doo génnee noonu gone ya daal maanaam daara ba soo bëggee dégg dëgg ñoom ñëpp ay doomu bàyyi lañ <laughs> lu sa nga ca dem moom boo ko déggee muy wax nga yaakaar ne ndekete yoo kon noonu la mel mama ba yow juba nga ca boo ko gisee da muy xaatar xaatare ku ban la motax man suma ma nuyoo sax dama ko fay dumbo yi la koy def man mi nga xamne ne ah puissance moom nag ay affaire raté yi tiiwu ci wax yalla da lañ fay wax non nga tok de deglo ko wax de waaye tamit de man damaa jommi oustaz ni muy nga day téléphone di enregistré di wax maa la ko wax moom moom moom ba nit ñi doon jug moom jugut woon moom daal xale bu mool lay wër moom boo muuroo nii ba xaw a kii tuuti ma ne gone ya ay doomu bàyyi lañ de ndongo daara yi ci ci daaraam moom fuuta dañ ko faa jëlee sax sàcc dafay sàcc bëy sàcc juru jàmbur yi moom daal bàyyiwul dara dugub nii sax boo ko bayee ba mu xawali mu ñëwee ne ko tër indi ko fii ah, fi bëggoon a naa ko waar bu la waaree danga waar ah, yéen nag seen jikko neexuma de fu ñu leen fekk kole ñàppare yow dafa nii yow bàyyi leen li ngeen di def ci weeru koor lii suñu borom da koy tere. la aaya ci la ci ay dëkk ah, leen li ngeen di def yow puusal nii yow yow defal nii yow. li gën a bon ah. dina mooy làmb. moo benn góor bu lay seet si amul benn góor buy wax ci yow. moo yow daal bu ñu indee leen dëgg loo leen di kolente bind bi ngeen di bind moom. léegi yow sa da gis ñun ñu dugal fi daal. ko woon yow wéerul nii toog tëdd. waaye si sa daal li nga amoon. ñun ñii sax suñu daal ci bi dinañ koy simi yow nga sa daal ba sama kaw lal. daal ko indi ba suñu kaw ndax fondation bi ñoo ko def yow yàlla dafa dogal ne 15000 francs ngay fay waaw weer bu dee da nga koy dugal. ko may mu ngi 7000 ngay dugal léegi man bu ma dugalee sama daal yi war na yow du ndox du courant du ceeb du diwlin du suukar mburu sax ñoo la koy jox. nga boole ci tuur dugub tuur ndox. maman xanaa a wax keroog toog nañ ci biti nga may wax ay 15000 ngay fay 10000 ak yooyu man li may fay ak li ma dul ah, di ko wax ci biir nit ñi déglu ma wax la rek gis nga beneen yoon boo ko waxaatee dinaa tuur dóor yoo xamante ne nii. waaw su ma daal rek jàmm rek si ma daal lii. ah damaa xam ne kat. fayoo ndox fayoo courant dugub duus bi nag duus bi da ci dugub bu di dugub bëccëg tur ndox meeg dugub bi moom danga ko waroon fay ñu arrangé la rek foos bi bu feesee sax doo teg fay amoo xaalis dew ma fa maman génn sama néeg te ngaa bàyyi wax génn nag te toog ñu waxtaan nii sérieux man jaama ma fi indi moo tax ma def sama couleuru l'islam rek ñëw toog waxtaan ak yow. kii xamul kuy kaf ak moom quoi. kii comprendre ko xam nga ne kii kii nii la mel. da ngay mer nag de sa daal yi fee sa tànk yi. ah yaa ngi koy ne ñàkk sikki tamit nag yaa ngi bëgg am sikki. génnam ne mi ngi nii ci yoon bi génnam. nii nii sa jabar nag sangu gi muy sangu lekk beeg naan bi sax ñoo leen koy jox kon kañ buñ la héberger da ngay nangu. Ah, xaw ma koo ñu indil nii tey waa noppi. ah da bañ ba ne danga sol drapo l'islam vert blanc. Ah. wooteel wooteel fair play rek. dégg nga waa ana aw saw. pël bu pël. kaay. tey moom kër gi damaa bëgg tey ñu waxtaane yàlla waxtaane diine. waaleykum salaam toogal. tey ustaas laa leen indi ustaas Diop a nii.